légal war nañu delloo war ñu xel tuuti xam ne dëkk ngor la dëkk diine la dëkk fulla la dëkk fayda la mais gis nañ ne tey Barthélemy Dias dafa war waa Dakar parce que war waa Dakar weesuwul nga jël koo xamante ne dañ koo dàq ci ab corps de gendarmerie parce que tamit dañ ko wax te dëgg parce que gendarmerie dafa am code de conduite koo xam ne dafa def erreur ñi ko ci gendarmerie yow Barthélemy Diaz nga jël ko nga ne yow ya nga def sa conseil technique au niveau de Dakar lolu saga Dakar way la saga wa gendarmerie la nga jël ko melni Guy Marissagna fonctionnaire la mais dañ ko affecté Tamba mu du dem Tamba Tamba du Sénégal Sénégalais nek wala Tamba bokkul Sénégal parce que yow Dakar nga bëgg liggéey nga liggéey Dakar ñi affecté la nga ne do dem Tamba attends fu ñu ko teg te am Sénégal yo xam ñu ngi wër liggéey amuñu liggéey yow Sénégalais euh, ki la kétal la nga am Sénégalais dimbal la tay yow nga ne non sa fo bu ko liggey Tamba Dakar nga bu ko liggey fu ko tek donc il faut Sénégalais delo ci wat sen xel katal nañ ko mom auto tay sol nañ ko benen liggey muy mu ngi mu ngi mu ngi mairie de Dakar bu nekké Sénégal bobu lañ ñu bëgg jaay ñin ño xamanté dañuy wor sen gendarme ñin ño xam lañ dañu leen affecté ñu bañ ñu ñoy nitu góor yi ñoo ñoy gër yi yaakaar na ñin ay mous lañu wala ay kaña lañu wala ay dina war nañu tit benen bi moy sonu soosi nonu xaw ma ndey xadi la tudd xawma man de waxuma Sonko moo violé wala violé sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci parce que nit ku maandu la mais damaa yaakaar ne ndaw soosu noonu lépp luy ji njaaj këram la xewee ci saloom la xewee am naa amut mais daal dem na fa lu fa xewee ci salon la kooku nekk warul nekk exemple ba nit ñi jël di ko ketal di ko ñaanal xaalis pour di ko dimbali parce que tey am na ñoo xamante ne ñu ngi fii war a faju mënuñoo faju war a lekk mënuñoo lekk war a solidarité war na am suñu biir mais dañoo gis ne opposition bi ñoom balaa ñoo katal nit rek nekk nit ñoo xamante dañuy yuuxu ci rajo yi yuuxu ci Facebook fekk am na ay population yu fi nekk nekk ci ay coono nekk ci ay mbënd nekk ci leneen ak neneen ñu war leen mën a jàppale